salaamaaleykum mbokk internet yi salaamaaleykum mbokk Sénégal ñi ñuy seetaan à travers la puissance ak wasaare làmb maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay rek comme ni ñu ko daan defee waaye tey dañoo dem fi nga xam ne mooy Joal boo tuddee Joal nag da ngay tudd ay ndaanaanu làmb ndax dama naan Robert fii la ba ba ba bàyyee ko waaye ki nga xam ne mooy Manga fii la bàyyee ko waaye ki nga xam ne mooy Yaxya Diop Yékini jël le meilleur lutteur du cinquantenaire mu marqué empreinte am tey ci làmb ba tey boo tuddee làmb rek danga koy tudd moom fii la bàyyee ko moom yi ki Yékini waaye fekkoon nañ ay xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ ku mel ni Mamadou Ndiaye ku mel ni Ablaye Ndiaye waaye am beneen révélation bu juddu ay nekk ay xale ñu nekk ay ndaanaan di bay seen waar tamit ci làmb ji tey ki ñu toogal mooy élage Hadj caatu ay dam nag xam naa dina ñëwaat ci caatu ay mais John Lass bi moom dina ko définir lan mooy John Lass ndax xam naa ne loolu histoire la ndax dégg naa ne bu neex la sax xam naa après dina ñëw ci John Lass bi mu war a daje kan muy Daouda Fall 2 Daouda Fall 2 nag nekk biir Géejawaay kan moo ci woote mu nekk ki nga xam ne mooy Jax production wala su ma neexee ma ne la Don King de la lutte simple moo woote le 22 janvier taxawal ci ki nga xam ne mooy liis Ndiago ak Ardo waaye dafa ne duma bàyyi foofu dafa indi booy Maroon indi Calamber boole leen waaye mu indi El Hadj Ndiaye boole ko ak ki nga xam ne mooy Daouda Fall 2 mu indi ci ay révélation ne moom du tëgg ku dul koo xam ne mooy mbëru simple moom Jax ñu di ko jaajëfal bu baax a baax a baax waaye balaa ñoo xuus tuuti xaar ma bàyyi El Hadj mu nuyoo El Hadj nuyu naa la. waaw ziar naa maa ngi nuyu di nuyu sa mbokk yi ànd la ñëpp ñoom idée gaa yëpp nuyu sama waa kër sama yaay di ko yàlla bokkoon fekk suñu njëriñ ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla gën a uf mu jóge foofu ñaanal waa Joal Fadiouth ñëpp ku nekk am jàmm ak salaam nuyu sama copain Fara quoi moom moom sama wàll quoi sama genn wàll la du nuyu sama gars yëpp nag sama ku lim ku lim day jum nag ak sama ancien gloire yi yëpp yëpp yëpp yëpp Fadiouth ak Joal yëpp bàyyiwuma kenn sànceeg fépp ñoom dimle awoona ñoom Lamine Fall ñoom Sampol ñëpp ñëpp ñoom Gëgg Senghor waaw maa ngi nuyu ñëpp ñoom Modou Ngom gars yëpp grand yëpp maa ngi nuyu ñëpp ñëpp ñoom laan 2000 ñëpp dañu may jàppale maam dañu yaay ñoom ñëpp samay grand lañ mm. dañu may jàppale bu baax parce que seen rakk laa ko waa di oto nag si combat yi wax waa Joal Fadiouth ñu jàppale ma xam ne seen doom mooy dem am lu muy uti di ko di ko di ko jëflante ak ak moromam di wax ñu jàppale rek comme ni comme ni ñu si def ñaani waaw jàpp affaire ñu dem jëleen daam lu mu gën a gaaw ñu andi ko Joal Fadiouth quoi loolu daal moo suñu fierté te Joal yi ñuy tiitaroo Joal yi ñu boo quoi mm. alhamdulilah El Hadj Ndiaye lañ toogal ñu gën koo xam ci caatu Aydam mu war a bëri ki nga xam ne daaw dafaal deux waaye def na marqué na empreinte dem keroog li nga xam ne mooy 23 juillet mu daje woon na ki nga xam ne Robert 2 am fa ndam depuis boobu ba léegi gëjaat nañu gisaat El Hadj ci li nga xam ne mooy arène bi ay fan yaa ngi kii de fan yii saison ren bi neexagul ci waaw saison bi neexagul nag mais <laughs> sant ak yàlla quoi sant ak yàlla parce que yàlla mel ni mel nañu mel nañu jàmm salaam quoi parce que feebaruñ dara daluñu affaire yi ñoo ngi nag xam ne am ak ñàkk la quoi wax mais sama demagul fenn ñu ngi suñu ruq di entraîné ak suñu mbokk ñuy jàppale di xool suñu yaakaar ñu fa entraîné di dem di uti quoi yàlla moo ñu may na ko mais ñu sawlu rek lu ñu yàlla may jël parce que ñun moom mayu suñu bopp ñu nañ jël leneen lu lii. lan saison bi neexul ci moom lan la. saison bi non lamb la rek lamb la boo xoolee tey jii nii ñun yàgg ni bëre muy neex suñu côté léeg moo xaw a dëgër nga dem am léeg nga dem doo am léeg nga teg la ay lamb lamb di ko jël waaw mais bu teg leen nii tamit li ma gën ci ñun quoi li ñu yàlla séddee xam nga comme mooy sa bopp moom mm. la may nga jël te li leen yàlla may te ñu ngi sant yàlla bu baax li ma wax rek sànq rek comme am nañ jàmm ak salaam rek ban di dem kon suñu bés sant yàlla bu baax parce que am na ñoo xam ne ñoo ngi entraîné ñu ngi ñu tëdd feebar mm. waaw tey loolu kañ ñaan ñu ko mission dañuy jóg di compétir comme ñun di def dara du am dara tamit mooy loolu ñun daal ñoom ñëpp wax wax gaañ. mais la saison bi neex na neexul gis nañ am nga ñaari demi finale de defe na. waaw wala ñett loolu moom sama habitude la moom moom wax dëgg fa yàlla moom demi finale moom foofu mooy sama kàl quoi wax dëgg fa yàlla mais demi finale ren finalu nga benn yoon ndàngaan. waaw am na ay demi finale tamit ñaaxu ko tamit am naa ñaar mu ñett demi finale ñaaxu ko mais sant yàlla rek loolu nekkul métti quoi. ñett demi finale daanaka da yëpp da nga koo maye de wala. waaw non mais El Hadj Ndiaye pourquoi maye. <laughs> non xam nga tey jii ne làmb yàgg say grand fi nekk rek. ak seen moom tamit quoi parce que boo xoolee ni ñi ñuy ànd entraînement mun ma que ñooy ànd entraînement chaque jour ñooy ñooy may de contact lu ñu am si làmb tamit si ñoom la nga jëlee ñenn suñuy grand lañ yàgg dëkk si dëkk bi quoi affaire yu noonu moo tax parfois bu defee ne rek ngeen xool fa mu demee rek ngeen may après tamit ata ba lii parce que lépp dañ lay fay la nga dem xool leneen affaire yu noonu mm. parce que ñoo jàppale suñu biir quoi ñoo seenu daanu Mm, noonu la fa demee. noonu fa demee El xam nga bés bi nga jëm. waaw bës bi ma jëm xam naa ko xam naa tolluwaay bi xam naa yéeg-yéeg bi xam naa fu ma yóbbu tamit bu baax a baax ba tax na moo oosi waa Joal yëpp ak ak commune bi yëpp yëpp ñëpp laa si oo bàyyiwuma si kenn kenn kenn kenn kenn parce que xam naa ne damay dem fekk fekk ji quoi may fekk ji may fekk ji mbër la man yaakaar tamit jógee si kër tamit jógee si écrit comme ñun ñëpp am ñu yaakaar si moom am ñu yaakaar si man tamit xam naa du yomb waaw moo tax it daal maa ngi ñaan ñëpp ñëpp jàpp si bu baax ba mu yomb si bés bu baax. xam nga mbër mi ngay bëree. mbër bi non non xaw sax ma nga xam noonu nag wax dëgg fa ne yàlla man daal. est-ce que xoolee dañuy ngemb suñu kër di dem bëri ji doo xam ñaar mbër fay ñëw doo xam kan kan de. waxoon na la bul jaawale lamb simple beeg lamb dóor bi de. pourtant nag bëri dóor moo gën a yomb bëri simple parce que boo xoolee bëri dóor kenn ngay bëral quoi benn combat rek la da ngay teg sa bakkan foofu teg fa jeexal waaw ngay teg rek jeexal moom bu jeexee jeex na bu wér sa da ngay bëre war a bëriwaat bëri war a bëriwaat di xaar xam nga xooloo gën a métti mais fii benn combat la mën nga mën nga entraîner parce que boo xoolee ñun bëri simple combat aare mu ko amee ñun dañuy noppalu rek parce que boo imaginer tey jii di lundi au vendredi da nga koy entraîner weekend samedi dimanche lundi nga gën a bëri jiwaat xam nga noppali ko te imagine toi léegi nga entraîner weekend bi doo weekend bi doo bëri ji yaa ngi yaa ngi récupéré loolu bénéfice ñun moo tax ñun bëri si bari dóor méttu si ñun méttu si ñun dañuy dem def ñu mën yëpp te kàttan ko and andi ko fulaak fed ak jom lépp la àndi teg waaw. mais El adversaire bi nga amoon ak adversaire du benn. non du benn daaw du benn li ñu jox duñ benn. te El Hadj daaw dafaal nee na ma da nga seetaan na say combat mënoo bëreeg li nga xam ne mooy poids lourd te nee na yaa ngi doo a am adversaire boo xam ne adversaire de taille la ci yow. El jël na lépp ci làmb amul loo jëlu ci làmb mais nee na heure boo dajeeg poids lourd da ngay am problème te moom du poids du poids léger bi passé da ngaa am koo xam ne da ngeen a tolloo wala nga ne yow yaa ko ëpp. waaw moom bu jafe boom boobu poids tamit affaire am rek parce que tey jii nii. poids lourd la kay moom rek moom moo xam ne ba jafe boppam. fekk poids lourd yu may dajal. ika ika moom ñooñu moom moom lañ duñ benn de wax dëgg fa na ñu ma dajal ñoo ko dàq bu bëri gën kaa os ëpp ko doole ëpp ko fis ëpp ko lépp te maa ñoom day ngiite ngaas li ma des si ñooñu du du du ma des ci moom loolu leer na ma nañ nañ nañ. lay wax ni. li ma des si ñooñu du ma des ci moom kooku benn voyage laa koy def du ma nekk fii di jàggal waaye Joal Dakar daa sori benn voyage tak laa koy dem dem ñibbi du ma yàggal fenn. nee na da ngaa dajeeg saane mu seetaan la nga dajeeg général Malika mu seetaan la nga dajeeg euh, ordinateur mu gis la nga bëri nee na boobu ngay bëri daanu ko. ñu mu lim ñooñu moom tente défil bi bu bu ñu lim ñooñu boo ñëw jàpp tente défil kan moom moom ikrum bokk ñu lim lim ñooñu <laughs> yow Balla ngay wax ay juru san lim ak ay Malika ak ay ordinateur bu jàpp si tente défil yi ñoo xam ne ñoom motuñu mbër ñu rek wax ne foofu du mbër am waaw ñooñu dañuy lii rek dañuy gunge nii rek lañu rek dañuy gunge nii rek Balla Gaye ñu dajeeg Boy Niang moom peut-être défil la <laughs> ah mooy la waaw bàyyi du sa woon jàpp xool bu ko nga xam ne Balla Gaye mosul sax digg kees ah loolu loolu du combat waay ah ay mbëru mbapat yi ak mbéy yéen ñi ngay tëkkal ni ami ko la bokkul sax. Ah, moom na kalb kale boppam moom na xam lu muy bëree si li muy andi. moom nee na de mënoo xeex. waaw gala loolu baax na mënuma xeex bu bés ba moom lu man du ko xam moom su ko xamee su ko xamee lu mu man kon du ma jël xam naa loolu xam naa bu desee bëri kese du ñu boole bu desee xeex kese du ñu boole. bu desee bëri yaa ko dàq bëri. waaw lu wax waxatuma loolu moom bëri moom maa ko dàq maa ko dàq bëri te maa. yow seetaan combat bi saa naa combat bu yàgg de xaw ma noonu xaw ma ko sax. dafa daan ah moo daanoon <laughs> am na victoire kon. Ah, xaw ma ndax am na victoire xaw ma sax am na victoire sax. ma mën su ma mënoon kese kese laa la kese laa xam lu ma mën laa xam lu ma mën laay teg xam naa lu ma lu ma mën su ma ko tegee moom moom du teg day day ñibbi dem sango jox te leer na ma ne su ma xamee su ma xamoon moom du ma jël. leen apaisant su ma xamul. la xamoon du la jël moom mu xam la nee na fekk la ci kaw tribune arène nationale jox la loxo nga nuyu ko mu nuyu la nee na xamoo moom mooy kan. waaw xam nga loolu yëpp mooy yëfu tàppe ñoom fekk ay nit taw nga nuyu ko ne xamoo mooy kan te kooku lijjantiwu la sax xam nga moo tax moo tax ma ne ko noonu lijjantiwu ma ko te mu ma lijjanti te mu mënu maa xam waaw moom balaa nga xam ne mën na mënu maa xam mu ñëw dugg si mboq ñu xool. ñu lan dugg si mboq bi ma ak moom maa mu ñëw chaque jour ñuy contact ba bés ba làmb ja chaque jour ñuy contact bés làmb ja ma ne ko beneen kere daan ko chaque jour ñuy contact nekk ba bés làmb ja ma ne ko beneen kele daan ko. nga indi ko beneen kele daan ko ba teew ko leneen xam ne xamu ko woon daan ko. mais El Hadj yow da ngaa mel ni yaa dàq bëri kii de. non waxatuma waxu bëri moom bëri moom naa la bu doon kese bëri kese naa xam kese du ñu boole kon kenn la ñuy boole mais du ko mais du doon nekkul moom. waaw dafa ne surprise dina am ci làmb. surprise xanaa xanaa lu muy gaaw daanu kese lay doon ay 15 secondes yooyu xanaa ay 15 secondes moo ko def surprise de loolu mën naa daanu ay. 15 mën ngaa bëri daaw dafa xalaat nga bëri 15 secondes mu jeex. waaw du ma yàlla du ma yàgg nii combat du moo tax sax estati xam nga estati nga dugal estati 30 secondes du ko sax mot ay question laa koy rek. kon yow da ngaa bëgg a ñëw def daal comme di nga def Robert ñëw rek dóor rek pare ci combat bi. non dara du ma mais de loolu la wax nee na yow loolu nga am ci combat bi nee na parce que yow songu nga xam-xamoon nee na boobu da ngeen di samp jaaga suul tànk yi. dara du ma sax songanteeg moom. jàpp na mu bëri moom day am lu ko neex su waa danaan danaan kii lii la ma ne waaw lii la ma ne day am lu ko neex dama koy teg lu ma ne mhm. fa laa koy andil lu ma ne xeex waaw laa xeex la man voilà xeex da daaw dafa moom day xeex moom fa laa ko andil nag. te eh, ñoo ngi ko ñoom mbës ñoo ko teg lu metti ah Lamine Golo ay mbës <laughs> Lamine Golo daa toj fenn ay mbës moom daa xeex la man na préparé xeex xam ne dina xeex ba bàyyi nag te xeex du yàgg sax far nga ngan googu kooku ñaar kub ko dóoree day day wàcc antuloo ko kanam dafa ngan dafa dafa neex a dóor foo dóoree nga gis kanam gi. te El Hadj ma jaaxal yow da nga xaw a ñeme waa kër Ikri Balla Gaye ndax dañ la laaj fii nga ne sama ndënd dama koo samp ci Ikri bi li nga xam ne moo naqari woon Yékini yow yaa koy defar est-ce que seet nga bu baax yaa ngi suuraale loolu waa waa kër Balla waa kër Daouda Fall yi dañoo suuraale loolu ci combat bi ba combat bi daa am. lu ma waxee noonu laa koy defee de lu ma ko waxee noonu laa koy defee parce que xam naa ne waa géej waaye noonu moom sama pa sama daan Daouda Fall pare nag na keneen ñëw nga lu oto bi naan ren ak ki ne keneen ñëw <laughs> laa leen def damay daan ki teg nit na na keneen ñëw ban jeex keñ. ñoom ñëpp waaw ñu ne bu ñu def laa leen def rek. xale waa kër Balla gay saf nañ dañoo saf làmb de. ah saful làmb wax la boo waxee làmb moom xaan saf la leen ngeen wax mais làmb moom saful ko waaw mën nañu wax daal ba ñëpp yaakaar ne ñoo fi nekk moom yaakaar ne suuf du am xam nga léegi nga gis mbër bu wax ba yaakaar ne mhm. combat du am. bu wax nii continué nag <laughs> yaakaar ne bés du am quoi. yomb na waaye lundi baa jafe. lundi baa jafe nag toujours combat amul wax nag. Ah. si ñaar ji nga toog wax lu la neex télé yi tiim la nga wax lu la neex mais su bés wax du am jëf moo des. Mm. te neex yaakaar naa ne kenn du bàyyi jëf di fay wax <laughs> waaw man damay jëf nag. da ngaa fas yéene jëflanteeg Daouda Fall. bu baax sax bu baax a baax baax jëflante bu baax sax. ci bon côté. côté yëpp bëri dóor la lépp lu ñu andi. El Hadj bëri dóor du bëri simple. dañuy andi bëri andi dóor bëri dóor du bëri simple xam nañ ko war nañ jël bëri dóor licence bëri dóor licence sax bokkul. li nga fay sax bokkul fay fay bi sax bokkul mais dix mille bi cinq mille xam nga lu ñu jël ñun licence bëri dóor lañ signé de mm. waaw lépp la àndi lépp lépp. dañuy tàggatoo rek xaw a jeexal sunu émission waaye tey looy wax sa adversaire tey. waaye dafa ñaanal jàmm ak salaam rek yàlla mee ko kàttan mee ko wër bu baax a baax a baax quoi bés ba mu ñëw yàlla mee ma ndam sa kawam parce que ndam laa ndam kese laa laa am si kawam li si kawam laa ñaan si kawam tamit maa ngi tamit di nuyu waa Joal Fadiouth yëpp sama gars yi di oo ngaala bu baax di leen sant di gërëm ngaala ngaala Omar ngaala góor si góor maa ngi bu baax baax a baax a baax kooku amu fi ñoom Modou Fall waaw amu seen fay ñoom Ibrahima grand Ibrahima ak sama gaa kaw kaw maa ni ko waa ñoom Sangoot ñoom Tidiane ñoom Matar ah ñoom Tafa gaa yëpp aw ma seen fay ñoom Amet ñoom Assane sama gaa yi timb banlieue bi aw ma seen fay ñoom ñëpp sama grand yi waa café café aw ma seen fay dañ may jàpp bu baax bunt saal ba faata du ma fay saal quoi xam nga saa ji bu ñu man du ma fay gars yi ñu ma dugal entraîné ay yooyu maa gërëm bu baax ñoom Bira Fall café ga fële ñoom Masseer ñoom Pa ñoom Tafa sama boy ñoom Xaadim ñoo gërëm bu baax ay Babacar ñëpp sama baay gaal leen ko waa ñoom moom café ga fee ndubaab maa ngi gërëm bu baax nuyu sama famille bu baax a baax nuyu ñoom far ñoom bi njool ñoom ceeb ñoom njool sana gars yëpp ñoom Papa Diagne ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñoom Modou Ngom fan jóge di entraîné chaque jour ñoom muuma Papa Gueye muuma ñëpp ñëpp boo ko ñu Mbaye Sarr di di jàpp si affaire waaw def na ñëpp ay doomu Joal parce que Joal yi bu ñu génnee Joal la ñuy génnal moo tax bu si gën a xawlee rek ñëpp dañuy bàyyi ñëw jàpp si di ñaan ndam waaw nu mu gën a seetee rek mu ñu gën a arrangé quoi buñ faa jegal gaay yi di ñaan gars yi jàpp si bés bu ñëw def mobilisation ki la dugg stade toog sañse waaw daan wàcc sa wàññi sa côté mobilisation bi. comme daf rek yow xam nga man damay andi xam nga moom stade moom la gis. ni moom gisoon bi loolu sax yi baax taw baax yàq taw baax yàq na moom mais xam nga man chaque jour damay andi saa yi moom mooy loolu ko dañ ma si damay jàpp côté boobu bu baax a baax seen dëm laa nag moo tax quoi. moo tax seen doom laa sax dañuy jàpp bu baax a baax dañoo di ñaan rek ñu gën a ñëwaat ñoom Arsa. Arsa sama doom nday Arsa maa ngi ko ñaanal jàmm ak salaam waaye gis naa affaire yi ñoom grand Babacar gis naa affaire yi waaw bu baax Abbas maa ngi kontaan bu baax di leen bégg bu baax a baax a baax a baax a baax di bégg sama waa kër nag sama soxna yi amu seen fay ñun ñëpp. Mhm. sama mag ñoom Mamango ñoom Kole waaw amu seen fey bu baax sama yaay maa ngi ko ñaan bu baax a baax a baax a baax. dafa sonn si man quoi su waxee mu ne sama caat bu ko bu ko dara dal lu ñu liggéey si kii danaa ma noonu toogal yow yaa si sama caat waaw <laughs> caat mooy loolu caat mooy xeetu yaa yow mm. na la fa demee maa ngi ñëpp di nuyu bu baax a baax nekk di leen màggal di leen sax di leen ñaan jàmm salaam bu baax a baax ok merci beaucoup. acca jërëjëf mu ngi noonu ne naa leen ñu ngi doon am caatu ayda bu Joal ñu naan ko El Hadj wala ñu ne alias John Lass moom lañ doon am fi waaye maa ngi gërëm ki nga xam ne mooy Khalil mi nekk li nga xam ne mooy ci caméra caméra bi moom ak ki nga xam ne mooy Idi sama siika mbay yooyu noonu maa ngi leen gërëm bu baax di leen sant di gërëm ñu nga xam ne ñoom la fekk ci biir kër gi surtout mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo ne laa fekk ci biir kër gi ñu togg chaque jour muy samay jabar lañu waaw bu ma neexee ma leen nuyu bu baax di leen jaar bàyyi ma kenn surtout ma femme dama koy beral ñoo spécial fara maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye di sant sama yaay buuj nee naa feccum liir bu neexee nday ja tey ci mbagg yi kon ñu dem ci beneen émission ak beneen feem wala beneen mbër ci biir wasaare ak la puissance